أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وزريتها من الشياطين الرجيم رب أعوذ بك من همازات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضروني الحمد لله الذي بجلاله تم مسالحات الحمد لله على كل حال سبحانك لا علم لنا إلا بما علمتنا أنت العليم الحكيم ساد لساني نوير جناني سافي أماني وزيد برائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi ak mbokki taalib yi ak mbokki dëkkandoo yi ak wëllëre yi ak fu waay mën a nekk ci àddina si rawat na ci réew mi ñu nekk noo ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu seen xarit seen soppe Cheikh Ousseynou Sy naar borom Touba ñu ngeen di dajeel ci émission bi nga xam ne moom lañ tuddee jàmm du doy fii ci Prestige TV dégg nga mooy dajeeg yéen tey di ñaan yàlla na nu yàlla defal jàmm def ko ci réew mi def ko ci àddina si yëpp yal na di nga dak mbas ak musibe yi ak balaa at mu ren mi de nga maam nga xamne ne ñoo ngi nekk ci juroom ñaari fan ci xarit di yemok ñaar fukki fan ak juroom ñaar de nga ci wéru août de nga 2020 di nga xamne ci 1442 de lésir nuy ñaan sunu borom yal na doli jam te bala yi yàlla na ko yàlla dàq te yàlla dégg maam nanu yàlla defal atum naataange ak wet ak gudd fan ak kattan gu wet dégg nga di siyaare bu baax a baax dégg nga mboolem kilifa yi diine kilifa aada yëpp dégg nga di wax ne ñoo ngi siyaare sëñ Muntaxa basir di ko ñaan yàlla na yàlla guddal fanam wéral ko naal bi nga xam ne moom la naal yàlla na ko àggale ci barke Cheikh Khadim di siyaare bu baax sëñ Cheikh Jëmb Fall dégg nga ak mboolem mbokki taalibi yëpp di leen ñaan a gudd fan ak wér di siyaare mboolem kër diine yépp dégg nga képp kuy tidian ba ngay xaadir ba sal salsalu dabbax yu ahab ak ñasen dégg nga ñëpp no leen di siyaare dégg nga di ñaan ah, kër diine yépp dégg nga am khalifa ah, yalla fi yalla yagal di ñaan tamit dégg nga diin islaam yàlla na ko kéeféer dégg nga yalla ko yalla daanel ci barke Seydina Muhammad salaa wasallam ñu nekk ci at mo xamni mi wax dëgg yalla muy at mu bees nuy ñaan dégg nga ci at mi dégg nga yàlla na dàq ci at yi weesu yëpp ci barke Seydina Muhammad salaa sallam ñu sant bu baax nag euh, ki nga xam ne moom mooy borom kër gi muy kan muy Pape Doumbia di ko ñaanal moom tamit yal na yàlla guddal fanam naalam yàlla na ko àggale yàlla moom am dog ci barke Seydina Muhammad salaa sallam di siyaare bu baax mbooleem sunu caméraman yi nga xam ne Madieng Dieng ñu ngi koy siyaare bu baax ak sëñ du Fall. Ah, di doomu bàyyi maam Cheikh Ibra Fall di siyaare tamit dégg nga maam ki nga xam ne mooy Cheikh Taay di suñu doom ñoom ñëpp ak Modou sa sëñ Satirna Ndione bàyyi wunu kenn ci waa Prestige dégg nga yal na yàlla yokk Prestige ba ñëpp yëg ko seen liggéey yàlla na leen ko yàlla defal ni ngeen ko bëggee ak sëñ daaw di noo koy siyaare bu baax di xamal ne tey jii nag danoo am ah, koo xam ne kii dégg nga waxuma ne gan la waaye suñu doom la suñu xarit la suñu mbokkum taalibe la di baax di taali boo xam ne bi ci keppaaru Serigne Saliou Touré dégg maam fa la yaroo fa la jànge am xam-xam dégg nga ah, ñaan sunu borom yàlla na xam-xamam ci barke Cheikh Abdou Lahad Mbacké xam ne mooy yaakaaram dégg muy kan ah, muy Cheikh Aline Mbaye dégg nga moom tey jii moom la ñu dalal ci suñu plateau bii fas yéene waxtaan ak moom ah, ci li nga xam ne mooy taasoo ak asora ak xew-xew yi nga xam ne moom moo ci am kon su ko defee nu wax ne rek Euh, sëñ Aline Mbaye kon bu nga nuyoo rek asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina wa mawlana wa ala alihi wa tasliman alhamdulilahi wa abada ala allazi bihi lana alhuda abada سدل لساني نوير جناني صفي أماني وزد برائي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا شيخ حسينو باي حسينو يوح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولم نيغا خامتاني بي نيغي سيتان بريستيج تي في واي سين ايميسيون بو ماغ بي màgg bii nga xamante ni bii moo nekk ci sa loxo muy jàmm jàmm du doy yàlla na suñu borom defal ñëpp jàmm bàyyi seeni di la ndokkeel di ndokkeel auditeur seetaan ñëpp waaye di ndokkeel mboolem àdduna bi at mu bees bi nga xamante ne bii moom lañu moom la ñu dugg mm. nga xamante ne bii at mi alxuraan da waxoon ni inna iddata shuhuri inda allahi isna shahr isna asara shahran limu mu weer ci suñu borom mm-hmm. fukki weer la ak ñaar waaye nag am na ci ñeent yoo xamante ne bii mm-hmm. dañoo bokk ci asxurul xurum muy weer yi nga xamante bi dañ leena a wormaal mm-hmm. weer wi tambali nak atum jullit yi mm-hmm. muharram di tam xarit ni nga ko waxee mom mm-hmm. nak dafa bëgg dafa dugg ci weer yi dafa dugg ci ngeenel ci weer yi gëna mag nga xamante bi lu jiitu lislaam sax ci jahiliya gi mom weeru Ashura mom weeru muharram di tam xarit yàlla sonoma daf ko magal bay seenu xamna naa nuyoo ñu la dëgg la jërëjëf sëñ Aline euh, wax dëgg yalla lolu mom leer bu bu baax té euh àddina li ci am rek mooy ñun bu nu toogee ci palaato yi mhm. liñ ci jublu mooy laabiire doomu aadama yi rek te yàlla tax mhm. ndax yéen yor seen xam-xam sonn ci dégg maam pour xam ko mhm. war ko dégg nga di ko laabiire jullit yi li loolu yombut waaye sëñ Tuubaa dafa ne nasihat lil ahlil baari xayra min jihaad fil kufaar laabiire jullit yi te yàlla tax moo gën di rey junni yéeféer par bis dégg nga te am na ñoo xam ni dégg nga xamuñu dégg maam lan mooy taasoo xamuñu lan mooy asora hmm. ci loolu nag laa bëggoon dégg maam ñu hmm. dugg dégg maam hmm. eh, bala ñoo àgg ci asora sax waaye taasoo bi dégg maam nga wax nu dégg maam lan moo ci yonent bi dégg maam lu mu ci digle woon ak liggéey bi wala ki nga xam ne ku tedd ki nga xam ne mooy suñu yaakaar te ëllëg muy xaadimu rasul lu mu ci wax jërëjëf Baye Seynou moom day ñu dellu di la sant di la ñaanal ndax yow moom koo fi dalal rek daanaka sab taalibe la sab élève la mm-hmm. waaye yaatal xam-xam ak yaatal liggéey bi moo waral lépp mm-hmm. waaye boo demee ci masaalikul jinaan rek boo demee mm-hmm. di nga fekk sëriñ bi di wax ni wattafaqoo bi fadli ashura ala lazi yud'a bi taasua dëgg mooy boroom xam-xam yépp dañoo dëppoo ci ngëneelu yow ma ashura waaye am na ñoo xam ne dañ koy woowee taasua taasua mu mel ni baat yooyu en la ak achara tis en mooy neuf achara mhm. mooy fukk mhm. léegi nag weer yi nañ ci àjjuma jee weesu am ñu mhm. départ ca samedi ba ñu ne ñooy ñooy mooy benn fan léegi nag taasu'a ak ashura nag moo ci gën a siiw ndax moo tax moo tax mu ne li kaw ak aksara minhu ajra fa asbitan ma jami dëhra sooy jàpp nag na nga jàpp ñaar yëpp mooy na nga fexe ba màggal en waaye na nga màggal ashura mooy juróom-ñeenti fan tam xarit ak fukki fanu tam li tax ñuy màggal yëpp mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan woor yow ma Ashura dëgg la bi ñu ñëwee wax ko ko daf daan woor yow ma Ashura bi bi ñu ñëwee wax ko ne ko yahudi dañ koy woor mu ne damay woor kon léegi taasuwaan ngir ma wuuteeg ñoom wuuteeg ñoom nga xam ne moom ndeysaan daf koo dësër dafa wax ni in ashtu ilal qaabil la asuma taasi wal ashir su ma yàlla mayee ma dund ba fekkee déwén dinaa war yow ma taasuwaan waaye dinaa war yow ma Ashura waaye nag ndeysaan avant Euh, ndeysaan at mi del si waat moom ah. yontu bi sallallahu alayhi wasallam dem loo loo eh, ci ci la demee nga xam ne hmm. booba yàlla jën la gróom moo tax ñaari bis yooyu taasu am mooy juróom-ñeenti fanu tam xarit Sénégal nag yomb yomb naa xamle hmm. ndax mooy bis bi ñuy def bernde yi ci guddi yi mooy bis bi ñuy def xéewal yi ci cere yooyu bis boobu nag mooy taasu am kon guddik ñu jëm ci guddik fukkeel ga guddik fukkeel ga nag sëñ bi daa wax ni wa asbitu fiihi ashyaan fiihi tunqalu hmm. an saydil anami fasta fal tastamilu dañ cee toxal yoo xamante ni bii dañ koo soxalee jële ko ci ngën gi mi ndeef sallallaahu wa sallam alayhi samadu wal aalihi wa sahbi man urshidu nee na nag yéen jullit yi na ngeen jëfandikoo yëpp loo xamante ni bii dañ koo toxale mhm. jële ko ci ngën gi mi ndeef sallallaahu alayhi wa ku yàlla may ngay dund ba fekkee yow ma Ashura fekke Tasu'a na nga góorgóorlu ndeysaan ba matal loolu lépp bàyyi seen xam naa kon loolu bu ñëwee ñu lim ko insha allah dëgg la waaw kon euh, euh, dégg loolu rek nga xam ne wax dëgg yàlla yonent bi dégg maam yéeneem ah, ñun dañ koo war a mottali mhm. gannaaw ñun ñooy xeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mhm. dégg nga moom mu amoon yéene bu déwénee dégg maam dana woor juróom-ñeenteelu fan yi dégg nga far yàlla def dégg maam moom mu daal ñibbi àjjana mhm. kon ñun suñuy ñun ñoo war a dégg maam woor juróom-ñeenti waaye woor fukkeel ba mhm. dégg nga kon mu wax ne euh, bis boobu nga xam ne dégg nga parce que nit ñi damay léeg-léeg dañuy damay bañ ñuy jaawale dañ naan tamxarit fi ñuy defee taaje boon ak fi fi nga xam ne fii du taaje boon bokkut mhm. taaje boon bi ñu koy defee mooy bis bi nga xam ne bii mooy juróom-ñeenteelu fan bi. Mhm. ci lañuy togg cere yi ca guddi ga. Mhm. dégg nga maam nit ñi def taajaboon. Mhm. dégg nga boobu mooy juróom-ñeenteelu fan yi. waaye foofu nag dégg nga maam buñ fi noppee. ca suba ga nag mooy nekk dégg nga maam asora. waaw léegi moom lan la ñuy wax dégg maam ndax wax nañ ne euh, li nga xam ne ñoo nekkoon ci gaal gi. ak dégg nga maam bis bi bu nga xam ne dégg maam ñu baax ñooñu. ah jàppoon nañ leen dégg maam ñii jën wi wan noonu leen ak yooyu yëpp hmm. dégg nga loolu daal bëggoon naa nga leer lañu ci bu ñu xam dégg nga maam seen àll yi hmm. dégg nga maam lu ci ku tedd ki wax ndeysaan waaw jërëjëf Baye Seynou comme ni nga ko waxee rek masaal ko jinaan sax xam naa li li mu njëkkee hmm. mooy fukk yoo xamante ni bi dañoo bëgg yow jullit bi yow taalibe bi bu taasu en jotee waaw bu ansura jotee nga góorgóor def yooye loolu nag sëñ bi da koo lim daal ni sawmun koor waaw salaatun julli ah sillatun jokku mbokk mbokk wa xuslu ak sangu mhm. sadaqatun saraxe mhm. tax liimu zufrin lelli say wex waaw koxlu ak tusngalu mhm. iyaadatul maridi seeti ko tawat wa zawru aalimin zawru aalimin ziyaara ji borom xam-xam masur asil yatiimi saalimi raay boppam jirim mooy nga fekk ko jirim ñëpp xam nañ ko bokk na ci lañ def mooy xiraatu ixlaasi alfan wa sabat mooy nga jàng xululaaw ahad junni yoon waaye nag tew si una alal iyaali bay wafat <laughs> nga yaatal nag baat bi nga doon wax sànq bay wafat gi nga yaatal njaboot gi loo sax boo xoolee fukk ak ñaar la waaw woor lañu wax kon tudd nañ koor gi yow ma taasu an mm-hmm. ak yow ma ansura mm-hmm. soo mënta woor ba mënoo woor yow wooral yow ma ansura waaw julli gi ñaar rakk sax baax na am na ñuy taamu ñeenti rakk bu ci ne xuloo la waxat fukk ak juróom jokku mbokk ku la yàlla booleel mu doon mbokku deret mbokku diine mbokku dëkkandoo nga jox ko ci ci bis boobu mm-hmm. yëpp dara araamu ci dara du ci bidaa waaye xuslu googu càngaay gi sax am na lu lu wax nañu day day saafara ak tawat ñu ngi jamono yi covid <laughs> waaye sa daqaroon saraxa gi am na ci solo dañ koy digle waaye leel say we ba ci tus ngalu gi nee nañ ku ko def yàlla sunu borom mën na laa musal ci wànneen waaye mën na laa mm-hmm. musal ci ci gumba waaye jànq loolu ahad junniy yoon waaye gis nga yaatal gan ñi nag siiw na ci Sénégal mooy yaatal njaboot mm-hmm. moom tamit sëñ bi nee na day joxe wërsëg moom la wax ni wal xuslu fiihi xiila yan fi saqama sangu ca day dàq ak ràgg mooy tawat wal kixlu fii hittat fawul ama tusngalu ca day tax ak gumba dàqu taw si ona fii alal iyaali yaziduna risqa bi isnil waali yaatal suñu njaboot dem jënd say ginaar waaw jënd sa ndawal hmm. def ca cere def ci meew xale yi xéewloo ko na ma sàmbee ni baal su boobaa loolu nee na loolu day dolli wërsëg ci at mi hmm. te lool yee yaakaar naa tawfiix la mu ne nag eh, ci li nga waxoon ci la ñëwee nag wax ni summali ansura asyaun tura maxsuusan eh, biha rawaaha man tara Ashura nag moom am na loo xamante ni bi ay ngëneel la muy moom tamit fukk yonante yoo xamante ne bi bàyyi seen ni nga ko waxee ñoom bi yàlla dogal seeni xew-xew ndax koo ñoddi ba ca Ashura mu def ko fa te mënoon naa nekk ci yeneen bis moo tax bis bi doo fan yi doon bis yu ngëneel soo ñëwee nag ñu xool ñu xool benn par benn loolu nag laa bëggoon ndax xam nga mhm. fukk ak ñaar yi nga wax sax mhm. émission deux heures de temps mënu cee jeex ndax buñ ko doon leeral mhm. ndax yaatal sa njaboot dégg nga maam li muy yokkee wërsëg ak ni muy defee ak loolu ak nu ko war a defee mm-hmm. dégg nga bon togg yi ni war a togg dégg maam ah nga xam ne wut ay ginaar wut ay kii te dañoo wax ne sa njaboot nañu suur. Mm-hmm. am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne cere rek lañu war a defar. dëgg la mm-hmm. te cere yi nag bu ñu ko dee defar tamit nañ ci moytu ndax cere yoo xam ne dañ koy bomb ay beurre def ci ay kenn xamut ban mm-hmm. ñoo xam ni. ay tension dégg maam lañ leen di indil. dégg nga ba indil leen leneen. dégg nga am na su ñoo xam ne dégg maam bu ñu ko defaree dégg nga lañ ciy def ci cere ya. bu ko lekkee mën ngaa toog fukki fan dégg maam doo doo génn te loolu dégg maam kon ah, du loolu baaxut nañ ko moytu dégg maam mm-hmm. boo jëloon sax dégg nga defar sa salaat sax dégg nga lekk ci ba suur mm-hmm. dégg maam kon suur nga mm-hmm. du dëgg kon mm-hmm. léegi nag damaa bëggoon euh, fukk yooyu ñu wax su ko defee dégg maam ñu jël ci pat benn rek dégg nga ñu leeral ko dégg nga su ko defee dégg maam ñu soog a jàll ci émission bi ndeysaan mu ngi ko bàyyi soo ni jërëjëf waaw daal loolu nga leeral am na solo moom daal yaatal sax njaboot ci berne lañ wax suñu maam ñi nag moom ñoo jëloon cere waaw ndax mu woyof Mhm. waaye yeneen yaa ngi fi yëpp a ngi fi yëpp yëpp a ngi fi loolu am na solo kon bu ko defee xew-xew yi ci xew mhm. dafa njëkk ci sunu maam aadama mhm. moo tax mu ne fa fiihi taaba rabbuna ala abi basarihi aadama na bi ci yow ma ansura waaw ci yàlla sunu borom jéggale sunu maam aadama mi nga xamante ne bi mooy baay mindee famille lam defoon waaw àjjana lañ ko dugal mook awaa lu leen neex lekk leen waaw seytaane mënal leen waaw ba ko yàlla suñu borom di jéggal mhm. bisub yow ma ansura la woon kon bisu yow ma ansura bisu bisum njéggal la waaye kon nga gisit doyen yonent yi mhm. mu yont yàlla noox mhm. wastafati safinatul maaluma fiihi alal juudi mustaqima yont yàlla nooxit gaal ga mu defaroon tuufaanum noox ma ba ko yàlla yettloo gaal mu yett gaal lu ne mu ne ko wut wut ca peer dugal ca biir ba mu ko defee Yalla sunu borom wacc ndox mi ne ci asaman wacc ndox mi ne ci suuf aduna sepp doon ndox deug la ba gar gay tel te juldi yawma yow ma Ashura la tombee kon lolit doon na lo xamanteni bi dafa dem ci ngeenelu bis bi mhm. nga ñewit nak ci yoonte yalla uh, musa mu ne mhm. wa fihi falqu bahrihi li musa mhm. mu ne yalla sunu borom it ba xarlo yoonte yalla musa Muusa ga waaw mu def fukki yoon ak ñaar mhm. ndax dafa ànd ak fukki famille ak ñaar ay fukki ngiir ak ñaar bisu tam xarit la yàlla sunu borom maye woon loolu yont yàlla Muusa mhm. mu ne it nag wa hakaza wulida fiihi Iisa mhm. yontu yàlla Iisa ba 24 décembre jotee ci ci at beneen at mi ñu ne mooy juddoom waaye ñu jullit nag yawma Ashura ci lañ ñi mooy juddug yontu yàlla Iisa alayhi salaam waaye gis nga it nag mu baamtawaat ni wa fiihi igraqun li na kaza xuruju yunusa min al xuutil xusa yàlla sunu borom ba muy labloo firawna labok firawna it ba nga xam anniversaire la waaw mooy yow ma asura waaye nee na nag yow ma asura xuruju yunus min al xuutil xusa jàppal ni yonti yàlla yunus waaw ba ko yàlla sunu borom eh, di musal ca biiru jën wa di ko ci génne waaw moom te lam defoon mooy wax nañ ni yàlla sunu borom da koo wooteloo mu woote kenn gëmu ko mu mer bam demé demee dugg ci gaal ga ñu né gaal gi kat amna jam buy daw boromam buy daw ab sangam bu fi nek ñu tegoo bant ñett yoon mu dal ci yoon ci yunus mom mu xamni kon problème bi mom la mo na a suuxloo gaal jàmbur gi mu sanni bopam ci ndox mi sun borom ni jën mi wann ko waye du wërsëg wërsëg de bu mu rees ci bir lool mu nekk ca di ñaan di ñaan laa ilaha illa laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min <laughs> ba sunu borom yàlla sunu borom ba mu koy génne jën wa di ko yàbbi mm-hmm. bis bii ñuy waxtaane bàyyi seen mooy yow ma ansura ci la tombeeloon kon loolu doon lu am solo mm-hmm. waaye nga gis mu a it nag summa alayhi taaba rabbuna alim fihi kasaka xuruju yusuf al yàlla sunu borom it yontu yàlla mm-hmm. nu yunus ci la ko ci yow ma ansura ci la ko jéggale ci la génne ca biiru jën wa waaye nga gis it yontu yàlla borom fukki doomu bàyyi ak benn. waaw kan mañ ko tàbbaloon. ba ko yàlla sunu borom di may muy mucc ca biir kàmba googu di dem ñu koy jaay Égypte. fukki dërëm. waaw bisub tam xarit la woon kon ca bis boobu ca ca la mucce woon. moo tax mu ne la fiihi kaza xuruju yusuf al karim min jubbihi waaye nag fii fiihi aydan salama xaliluhu min naarihi fasalima ma ibrahima moom moom yaa naaru kooni bardan <laughs> wasalaaman ala ibrahima ba ko nam ru sànnee ca ca safara sa yàlla sunu borom ba mu ko ciy musal bis booba yow ma ansura muy fukki fanu tom xarit moom la tom moom moom la tombeeloon bàyyi sunu ba tey mm-hmm. wa fiihi rafon zil ola idrisa wa rafo ruuhi taqil insa yontu yàlla idrisa mooy yont boo xamante ne bi nee nañ amul bàmmeel mm-hmm. te booy wax nañu ba léegi sax am nañu ni mu ngi dund dëgg la moom yàlla sunu borom ba mu yëkkati ak ruuxam. di ko yóbbu ci kaw. Mm-hmm. yow ma Ashura la tombé lool. kon gis nga yonent yàlla Isaa it. waaw ah. dañu ko jaawalee nuróole ko kiyam boobu moom it ba ko yàlla yéega ci yow ma Ashura la la doonoon. wa fiihi aydan taamara buna alim Daawuda gaafiran lahu maa faala. yonent la mu defoon ba sunu borom. Mm-hmm. di ko jéggal. la mu ko jéggalee ba mu koy jéggal bis yow ma Ashura la tombé la moom nag. tuuma mënta ñàkk ci àdduna dëgg la ku baax rek bëri tuuma dëgg dañ koo tuumaal nee nañ benn bi borom xam-xam yi maandu nee nañ daa jékki-jékkoon xool asamaan yàlla sunu borom ne ko yonent bu doy ni yow lu tax ngay xool asamaan te amoo ci yéene jaamu yàlla loolu la ko yàlla mereekat ba mu ko yàlla sunu borom di jégal yow ma am suraal am ñu ne déedéet ñi noonu nii déedéet moom daa amoon ab ab ab soldaar ab saxaabaam boo xam ni dafa bëggoon soxnaam mu jël saxaaba ba yebal ko ca guerre ba mu dee fa mu nangu soxna si ñu ne lool la ko suñu borom jëkk waaye loolu nag tuuma la loolu laa la jublee ne ku baax rek bëri <laughs> tuuma ku baax bëri tuuma waaye nga gis ngi kon mm-hmm. euh, foofu daanaka fukki yonent dugg nañ waaye sëñ bi wax na it nii wa fiihi yuksaa baytuhul xaraam alayhi salaatu wasalaam nee na it kaaba gi nga gis mm-hmm. dama xamul nag ñaar la ndax damaa demagut màkka yàlla nañ ñu war a dem màkka ñëpp dem waaw ah, na mbalaanum kaaba gi itam mhm. ñu ngi ko daan muri di ko xoddaat ci yow ma ansura loolu nag damaa xamul ba xam dafa doon lu yàlla def ci baatin wala waa Màkka ñoo koy def ba léegi loolu nag doon na loo xamante ni bi waaye sunu boo ko xoolee fukk la yoo xamante ni bi ah, yow xew na ci yow ma ansura insha allah waaw yow ma ansura daal dégg maam xew-xew yi dégg maam bari na ci mhm. waa la te li nga ci wax dégg maam leer na mhm. ndax kat damaa xam ne lu day ni turu yàlla moom dafa foor de maam ba xajul ci biiru jën moo tax bi mu ne laa ilaaha illa anta subhaanaka inni kuntu mina zalimin dégg nga la ko génne dégg nga xam ne yàlla rek mooy yàlla ah dégg nga xam ne itamit dégg nga boo xoolee firawna mbiram nga xool dégg maam kii nga xam ne dégg maam dañ koo tëj ci kaso bi dégg ko sànni ko ci biir yooyu yëpp dégg maam ay xew-xew la waaye li ñu def lépp dégg maam ñoo ngi leen jégal ci bisu asora kon bisu asora hmm. yàlla na ci yàlla jégal amiin rabbal amiin dégg nga yàlla na àddina si yëpp dégg maam hmm. Hmm. ba balaa yi ak musiba yi dégg maam yàlla na ko yàlla génne dégg maam si àddina si yëpp kon ñun war nañu dégg maam ñun ñëpp war nañu tuub dégg maam di wax astaghfirullah dégg nga di tuub ndax yàlla kat dégg nga moom mooy jéggalaa ko te ku mu jéggal nga am jéggal yàlla nu yàlla jéggal dégg nga su ko defee di xam naa ne euh, damay profité rek dégg nga di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna mhm. dégg nga dafa am sunu rakk dégg ku baax koo xam ne kii dégg maam moo nekkoon Syrie ji dégg maam ci hôpital régional ñu wax dégg maam nga xam ne ah di suñu rakk bu baax a baax a baax koo xam ne kii dégg maam muy Abdou Guèye ñu ñaan dégg nga mu wàcc liggéey ñu yóbbu ko Touba yal yàlla doo leeram keroog bi mu wàccee tamit wax dëgg yàlla dégg nga nga xam ne moom ñun ñoo bokk benn wasila la muy Serigne Souhaïbou Mbacké Kosso. Hmm. dégg nga waaye bi mu àggee Touba sëñ Cheikhouna Mbacké ak sëñ Cheikh Abdou dégg nga ak sëñ Jili. Hmm. ñoom ñoo ko taxawu. Hmm. te lépp loo xam ne lii dégg nga maam ñoom euh, ci ndigalu sëñ euh, Mahamadan Mbacké dégg Euh, lu ñu fa war a defal rek defal nañ ko jàngal nañ ko kaamil foofa defal nañ ko lépp. waaye teewul sëñ Mahamadan Mbàkke tamit dégg maam ñëw na ci kër gi dégg nga joxe jaxalam jaale leen ñun noonu la loolu la ñu baaxoo ñoom def seen wayjur loolu lay def. Mm-hmm. dégg nga ah waaye fekk na fi tamit dégg nga euh, jàmbaar ju mag muy doomu Serigne Saliou Touré. Mm-hmm. dégg nga muy sëñ mm-hmm. nga xam ne euh, njabootam danoo nekkoon ci ñoom ci kóllëre gi dégg maam nga xam ne Abdou Gueye lu. Euh, ku tawat ci ci euh, daara ji wala koo xam ne kii dégg ma ci mbokk taal bi su demee rek yoro Guèye yoro yoro Diop lañ koy wax hmm. su ko waxee Abdou Guèye Abdou Guèye daal ci taxaw bu ñu ko dee war a entrer wala kuy dugg néegu góor wala ku mu mën a doon dégg nga nga xam ne yoro Diop moom ñoo ngi koy ñaan yàlla na yàlla guddal fanam dégg nga ak Ousseynou yoro Ndiaye euh, yoro waaw ak Ousseynou mi rakkam ñoom ñëpp dégg maam waaye keroog mbokki taalibe yi dégg maam ñoom ñëpp ñoom taxaw na ñoom daam ak ñëpp dégg nga ak Aline Mbaye mii hmm. dégg ñu ànd ak dégg ki nga xam ne mooy sëñ xaadim mu nga xam ne moom sëñ Saliou Touré Euh, wax dëgg yàlla lañ fa war a def yëpp dégg maam da koo def hmm. moo tax euh, sëñ Mari Siis dégg maam sant na ko dégg maam mbooleem ñoom rawul ak ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñun bokk taalib yi sant nañu dégg maam bu baax sant dégg maam sëñ Saliou Touré waaye sant nañ tamit sëñ Mahamadan Mbàkke ci taxawaay bi nga xam ne moom la taxaw kon sëñ Aline hmm. ah, suñu rakk jooju yàlla na xippee ci àjjana firdawsi ñu ñaar aadama mi nga xam ne dégg moo fi nekk di soxnaam moom ak euh, njaboot si yàlla teg loxoom waa koñ seer na ci moom seere bu rafet kon su ko defee rek euh, ñoo ngi leen koy massawu dégg nga am ñëpp dégg nga su ko defee sëñ Aline mm-hmm. euh, loolu laa doon jàllale rek mm-hmm. waaye ñu dellu si waat rek xanaa mm-hmm. dégg nga ci li nga xam ne moom mooy euh, asora bi ak wax nga ko leeral ngay tamit dégg maam ci li nga xam ne mooy taasoo a waaye dégg maam ñu bëggoon dégg maam bis bi nga xam ne dégg maam mooy asora bi dégg maam ci biir euh, dëkk bii nga xam ne dégg maam muy Thiès. Mm. nan la ko sëñ Saliou Touré doon organisé ak dégg ma ak mbokk taal bi. ndeysaan jërëjëf waaye seenu mm. xam nga ndeysaan bi ñuy lim fukki yeeg ñaar bay wafat yi. Mm-hmm. tudd nañ ci zawru alimin waaw ziyaare borom xam-xam waaw dëgg la. te loolu sax budul yow ma Ashura. Mm-hmm. sëriñ bi daa waxoon ci. Mm-hmm. wa zur xiyaaral ulama wa saalihin wax waqadim humu lillahi jalla kulla xiin yéen taalibe yi digal naa leen na ngeen ziyaara ji mbooleem borom xam-xam bu ragal yàlla tey jafe xam-xamam waaw waaw kulla xiin nag te na ngeen leen di liggéeyal nag wax waqadim hum lillahi jalla kulla xiin ba yegg ci ni innamal ijlaalu aalimil amal ijlaalu rabbil arshi fi ma qad allahu akbar Baay Ousseynou mi yàlla def mu am xam-xam mm. nga koy wormaal ngir xam-xamu diine boobu yàlla def ci moom mm. sëñ Tubaa nee na loolu moo borom ñoom ñoo allahu akbar loolu war a bàyyi sooy na bu yow ma ansora jotee kër yi diine ci senegal yëpp da ngay gis ñuy def ay ziyaaraat dëgg la ndax ñoom ñëpp nag bu ñu leen di topp diinee tax te ku wax diinee wax xam-xam wallaay dëgg la waaye nag yow ma ansora ñun Cees ñoom ci cër bu rëy rëy yow xam nga ko sax loolu yaa ko a wax waaw dëgg ndax Sëriñ Tuubaa fii ci gouvernance waaw bi ko fi tubaab bi jaaralee fu ne mhm. fii lañ mujj a dajeek moom wallaay dëgg la jàmmal ko nag Mhm. ni ko mën ngaa delloowaat sa njaboot. lool it yow ma en sóoraa la tombé lool. billaahi nekk fii ci Thiès dëgg la de. misaal tere wootewul woon ñu ko doon siyaar si. Ah. waaye daf doon wootee jaar googu Serigne Touba jaaroon fii ci gouvernance loolu xam naa yow mën nga cee nettali lu dul jeex dëgg la lool <laughs> loolu it ñun bénéfice waa Thiès la ku doon ni Serigne Touba fu ne mu jaar fa Gabon maa yombe wiir wiir Sarsara waaw ba Cees yow ma ansura la ko tubaab yi woowee fii ci gouvernance ni ko dew daal tooño tooñu mën ngaa ñibbi sa kër may ko jàmm waaw loolu yaakaar naa ni moom tamit moom la sëriñ bi daan jëmmal moom la daan taxawal mu nekk lu am solo ci yow ma ansura waaye seenu dëgg la loolu dégg wax dëgg yàlla sëñ bi bi mu demee ci liggéey bi mhm. bay dellusiwaat dégg nga ko ne da ngay dem Tëngéej mhm. boo fa jógee nga dem jànqeen mhm. dégg nga ah mooy Cees dégg nga ba mu jógee Tëngéej dégg maam ñëw Cees jànqeen gii nag dégg nga fii la ma as baram njëgeen dégg maa moom la woolu moo ñëw fekk ko foofu mm-hmm. Mm-hmm. dégg nga mm-hmm. ah mu ànd ak maa àllaa njëgeen boobu fekk na mu nekk tout tànk dégg nga nga xam ne rek euh, nit ku baax moo tax gis nga waa kër ma àllaa njëgeen ñu baax la dénga ñoom tamit dégg nga maam ñu jàpp dégg ma waa kër Sëñ la ba nga xam ne ma àllaa njëgeen bi mu fi nekkee nee naa la ndogu yi ñun ñoo ko daan jële Sëñ Saaliw Ture dégg nga di ko indi dégg nga ci maa àllaa njëgeen waaye booba dégg nga ne dégg maam sëñ bi julli na fa ñaari rakka mhm. dégg nga ba nga xam ne ñun ñii nga xam ne ñun waa Thiès di murit ci waa Thiès mhm. comme dañoo war a siyaare boroom xam-xam dégg maam di as gor mhm. dégg nga ñun ñëpp dañoo dajaloon ñu ne xam ne ki Serigne Touba tànn tegal nu ko fi dégg maam kooku doy na muy Serigne Saliou Touré moom Serigne Saliou Mbacke mu Xaadim Rasoul mm-hmm. moo tax ñu organiser bis boobu dégg maam di fa wàcc ay kaamil di fa daje dégg maam ah, jàng ay xasaayit su ngoonee ñun ñëpp ñu àndandoo daa dem finance fa sëñ ba ne woon dégg maam su ko mm-hmm. defee ñu julli fa ñaari ràkka mm-hmm. waxtaan fa xamle dégg maam digganteem dégg ak maam as baro njëgéen dégg nga waaye liggéey bi nga xam ne moom la liggéeyal ba n jox ko jàmm ji foofu la jógee bi mu fi jógee it nga dem na ndar Mm-hmm. moom ko tedd gi ndax bi mu joge fi dafa ne mm-hmm. day dem ndar dafa wolu maam cheikh Ibra fatin damal daru mm-hmm. de nga mu ne ko fek man ndar bi mu ko fekke ndar daf ko ne ah, Thierno mu ne ko Mbàkke Thierno mu ne ko Mbàkke mu ne ko xam nga li tax ma woo mu ne ko wa mu ne ko ah, liggey bi ma muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jam ko yalla de nga ñaan na ci sam borom ba sam borom may de nga ndar gi ku fi faatu dégg maam ci armeel yi bu ëllëgee bu ñu dekkee dañuy dox ba biir àjjant kenn du leen laaj dara ndax fii rek la ñu waxee demal ci jàmm del siwaat ci jàmm mm-hmm. kon ndar am na xéewal <laughs> kon moo tax man leen ñaari ra ñaari euh, rakk yi ndar yooyu ñuy julli foofu mm-hmm. dégg maam lu am solo la mm-hmm. kon su ko defee rek foofu dégg maam laa doon leer leerlal kon nga dikkaat rek dégg maam bàyyi seen loolu li ci li ci am solo yaa tudd géej gi te ku tudd géej gi tudd rasulullah sallallahu alayhi wa te sëñ Tuubaa bi mu dem ci géej gi nattu yi ñu doon wax ci yonent yii. waaw moom la ko sunu boroom ràng. xool ma waaye moom nee na yonent yi ñuy tudd fii. Mm-hmm. li ñu leen di wax ni yàlla sunu borom moom la leen defal ci yow ma ansura mm-hmm. bi mu leen koy defal dafa jóge ci barkeem Muhammadu Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam nee na ñoom ñëpp yonent bi barkeem la lañ leen abal. ngir ñu mën a am yàlla sunu borom defal leen loolu. gis nga ni ma tuddee nii ni ma tuddee ci masaalikul jinaan mhm. ni yonent bu nekk yàlla sunu borom mu ko defal nangam ci yow mhm. noonu la waxaate nii nag ba ko yàllay defal mhm. barke muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu koy fandool wa ma mada min raisin xaasa martabatan illaa walaasa bihi kay laa yara alama amul benn njiit bu fi nekk loo xamante ni bii yàlla lan lay defal da ngaa wéeru ci muhammadu rasulullahi moo tax mu yàlla sunu borom defal la lool ba ci maamam yi nee na moo tax noonu la tuddee mu ne li sa am nuurihi ko amlaaku mursilihi li di aadama nuurun fihi muktatima yonte yàlla aadama sax nee na ba ba ko yàllay jéggal mhm. xam nga nga ah, lu ne la wër waaw waaye ba mu gisee ñu bind laa ilaaha illa muhammad rasulullah ca la yàlla ca la waxee yàlla jéggal ma ci barke muhammad rasulullah mu ne ko foo xamee ko ko mu ne ko damaa gis foo bind laa ilaaha illa rek teg ca muhammad rasulullah mu ne ko jéggal naa la sëñ Tuubaa daani nag lu yàlla defal ñooñu rek mhm. barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu defoon leen <laughs> kon ñun xeetu yonent bi daal li ñuy wax ci ansura ñoo ci gën a yay waaw na mu waxee woon ni yéefar dañ koy woor mhm. waaye ñu ne mu mu ne leen ñun ñoo gën a yey ca Muusaa ñuy woor taason ak ansuura mhm. kon nga gis moom it nu ma ko waxee noonu la tuddee yonent yëpp mhm. ni ñoom yàlla ba mu leen di defal ci yow ma ansuura mhm. ci sama barkeb sëriñ bi sama wasila bi rek la xool di leen defal muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne di jaahi lam yamin lisan bi aadamu min lahoo daaw laino minhu xat xonsiment ci barkeb muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yàlla jéggale woon maam aadama najaa bihi laaha nooxan fi safinatihi najaa bihi laahu nooxan fi safinatihi yàlla sunu borom muccal na yonti yàlla noox waaye ci barke muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag wasiina yanquba amma asbatu ka ama yonti yàlla yanquba dañu yuusuf lañ ko jox mbubbam mu teg ko ci itam bëtam gis sëñ Tuubaa nee ne déedéet barke muhammad rasulullahi lañ jëf ca mbub ma waaw moo waral mu mën a gis loola moo waral mu gis loola waaw mu ne nag bil muntaxaa axrajal mannaan yuusufa min min jubbin wa min kaydin min anhar xaraa alama yàlla yon yonti yàlla yuusufa su ko yàlla mën may may mu génn ca kàmb googu barke muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax waaw moo tax mu ne wa saaxibu nuuni yunus ñëw na mooy saaxibu nuun bil maaxi ci farkatu bàkkaar bi muhammad rasulullahi xawaa farajan ca la mucc ci njaxare gam nekk woon ca biiru jën ba min rabbihi baadaan xatqa multaqima gannaaw nag bañ tegoo bant yam dal ci moom ci barke muhammad lañ ko abal sallallahu alayhi wa sallam mu mën a génn ci xeetu jën woowu ah. mu daal nag bihi gadat naaru ibrahima baari datan waaw mu sedd guy mu sedd guy nee na yonte yàlla ibrahima bu fekkee ne dañ ko dugal ci safara safara mu mujj doon climatiseur ah. comme sunu saal bi ñu toog ah. nee na barke Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo ko ñaan ca yow ma ansura ah ma asalaamin wa min kaydin qad ada salima sedd la bu ànd ak gis nga xat faas ay yóbba bil maaxi bi afiyatin yonent yàlla ay yóbba la sax la sax la doon dire nii kooba nee na bu wéree rek barke Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo fa jaar bil Mustafa bahru Muusa kaana munfaliqan yonent yàlla Moussa bu jëlee yatam woowu dóor ko ci géej mhm. mu def fukk yoon ak ñaar ci yow ma ansura mhm. sëñ Tuubaa nee na bul fàtte de barke Muhammadu Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam moom la ko suñu borom jàll waaye kama bihi ruuhu Isa li sama sama yonent yàlla yu Idrissa mhm. ak yonent yàlla Isa bu seen ruu yëkkati koo dem ci kaw rek sëñ Tuubaa nee na bul ah. bul tudd kenn tuddal sama waaja rek Muhammadu Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam bihi aliinu Daawuda xarida bihi yonent yàlla Daawuda itam su mënee jàpp ak weñ di ko nooyal ni ko wëñ barke muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo fa jaar mu daan daal wax ji da koy day gudd bi jaahihi xaasata rasulil kiraami ma an këlan bi yaay jami an ma ma an ma ma loxo ma alima ñoom lépp lu ñu am rek ci barke muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam lañ amee lu bàyyi seen jërëjëf jërëjëf sëñ Aline kon loolu leer na nañ dégg nga kon su ko defee rek euh, daanaka émission bi dégg maam danoo àgg dégg maam ci euh, jeextal bi mm-hmm. euh, ndax noonu nuy sinal ne waxtu jot na waaye moo wax ne ñi nga xam ne dégg maam pour tamxarit bi rek hmm. ñuy del dégg maam ay bool di ko dëpp dégg nga ak di fëgg ak def yooyu na ngeen xam ne yooyu moom du dara moom hmm. dégg nga li ñu war a def dégg maam mooy julli def ay naafila ñaan hmm. sunu boroom wax nañ la da ngaa war a def dégg maam ah, junni lixlaas defal sa junni lixlaas am na ñaari rakk yoo xam ne dégg maam nee nañ boo ko defee ñu jéggal la inna anzalnaa dégg maam fukk ak juróom inna kaw kawsar fukk ak juróom nañ ci góorgóorlu eh, am na ku baax koo xam ne kii tamit dégg nga wax na ne ah lam du dégg nga nañ ko bind suñu ko bindee dégg nga maam ak daa dégg nga ñu def ko saafara bu dee jigéen nga góox ci ñeenti góox ñetti góox bu dee góor nga góox ci ñeenti góox neen loolu tamit dégg maam dina dàq mbas mi yàlla nu yàlla defal jàmm mu bëggoon rek dégg nga sëñ Aline mm-hmm. ah, xanaa si kàddu gu mujj ndax signal nañ ma waxtu bi jot na mm-hmm. su ko defee dégg maam ñu daal nga tëj dégg maam bismillah ndeysaan jërëjëf Baye Seen kon it ah, ah. daa mel ne xasbunallah wa ni'mal wakiil waaw ni'mal mawla wa ni'man nasiir waaw moom tamit ci yow ma ansor dañ koy sàkku waaw soixante-dix fois soixante-dix bu ko defee nag li ñu bàyyi ci xel waaw xam ni daal góor ñi sol mbubum jigéen waaw jigéen ñi sol mbubbum góor loolu loolu lépp du dara du dara loolu da ngaa war a tiit waaw da ngaa suubu at moo xamante ne bi fukki fan nga ci lekk gum waaw te 365 cent soixante jours moo ci nekk waaw li nga war a def mooy ñaan yàlla mu may la nga mottali 365 jours yi ba waat yu bëree bëri am na sëñ sëñ Abdou Guèye moom ngay tudd léegi ndeysaan waaw yàlla newoon na moom 1442 du ci lekk benn fan mhm. moo taxit gis nga day ndeysaan ba ba laataa moo ñëw rek. fekk na fekk fekk na mu dem. kon nag yaakaar ne yow ma ansura at mu bees la ni ngay waxee janvier. Mhm. di ñaan yàlla fekke waat décembre deux mille nangam. Mhm. noonu ngay waree ñaane waate war yàlla sunu borom mu may la nga fekke waat xaram mbaa seen nag ñu ngi ñaan ci barka wër yu mag wër yi nga xamni yalla da tan ñetti fukk mm-hmm. te fukk yi nak moy fukki fa tam xarit ak fukki fa tabaski ak fukki fan wëru koor kon nak yalla na yàlla sunu borom jëlé fi mbas mi tamit ñu ñaanal la ñaanal sunu DG Pape ya ak wa prestige gep suñu borom do li leen jàmm do leen tawfiq yokku wër gi télé bi fep fo xamanteni bi bëgg na mu yegg fa suñu borom yeggale fa ko bi jaaxil khadim manzatil makhdum sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf sëñ Aline Baye jërëjëf bëgg nañu lool wax dëgg yalla xam-xam bi rafet na dégg nga ñoo ngi lay sant bu baax di sant waa daara ji yëpp dégg maam euh, di wax ne noo ngi siyaare bu baax dégg maam suñu daayira bi nga xam ne moom mooy daayira nihmata rabbal alamin nga xam ne euh, Baye Saliou Ndiaye mm-hmm. dégg nga ak Aline mbay mun mm-hmm. Ndiaye Mbaye dégg maam ak sëñ Massamba mm-hmm. dégg nga ak soxna Ndey juuf mi nga xam ne mooy jëwriñu daayira maam jaara bi dégg nga ak mboolem euh, daayira bi yëpp Euh, ma ba ci maam jaara kona ñoo ngi leen di siyaare yéen ñëpp dégg maam di siyaare mboolem mbokk taal bi di wax ne dégg nga ñoo ngi sant tamit dégg maam suñu xarit yi nga xam ne suñu wëllëre rawat na dégg maam muy mbayka jóge woon puut dégg maam ñëwoon fi ñu doon def émission émission boo xam ne tubaarkàlla xanaa yàlla moo ci def rek mu am cat moo tax dégg maam euh, waaye noo ngi koy ñoo ngi ñaan suñu borom yàlla na nu yàlla may ñu fekke waat dégg maam incha allah dégg nga ba defaat leneen dégg lu gën a kowewaat loolu te sant nañ ko bu baax sant nañu dégg nga maam mbooleem ñi mu àndaloon ak ñoom ñëpp waaye di sant dégg nga Euh, ki nga xam ne mooy Cheikh Ibrahima Dramé dégg nga ci Amérique di sunu doom nga xam ne day suivre émission bi fu mu tollu ak ki nga xam ne mooy Mouhamed Fall dégg di suñu doom di sunu goro nga xam ne moom tamit mu ngi France dégg maam day suivre émission bi dégg nga ak soxnaam ñoom ñëpp ñoo ngi leen di siyaare ñoom ñëpp wunu kenn dégg maam di siyaare waa Espagne di muy muy lan Ibrahima Tine noo ngi siyaare tamit dégg maam waa Chine dégg nga muy euh, Saliou baabu di siyaare waa waa Suisse dégg nga muy dëbb di ko ñoom ñëpp ak Cheikh Awa Balla Mbacke si dégg nga ca France ak soxna Awa si dégg nga ca France ak soxna Faat si ñoo ngi leen di siyaare ñoom ñëpp suñuy wëllëre dégg maam ak ñi nga xam ñoo nekk fii ci Sénégal dégg nga ñoo ngi siyaare ñëpp ak fu waay mën a nekk ci réew mi ak si àddina si noo ngi lay siyaare di wax dégg maam euh, émission bi moom lañ tuddee jàmm du doy te yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla nañu ko yàlla may wér ak kàttan yàlla nañu dem ba ñuy jàkkaarloog yéen dégg nga ah nga xam ne da ngeen ñuy woo dégg maam ñu def ko direct dégg nga incha allah te loolu yàlla mën na ko am na ko yàlla na ko yàlla def ci barke Cheikh Khadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.